asalaamaaleykum Cheikh Bassirou Diop ñi nga lay waa waar wi ñëw nañ tey fii ci màggal gi nga xamante ne mi genn màggal li ci réew mi ñu ñi màggal maam Cheikh Rahim Fall Babal Mouridina dégg nañ ne ñu ne maam Cheikh Rahim Fall ñu ngi ko gërëme ci fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmu màggal gi nag waar wi ñëw fi tey jii bëgg lépp loo xaye lii xew na ci muy guddi muy bëccëg daañu ko jottali doomu aadama yi nga xamante ne bëgg nañ cee jariñu moo tax tey jii ñëw janloog yow dee la laaj looy sa xalaat ci màggal gi ak nu ñu koy tàmbalee ak nu màggal gi doxee. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ko jaari ci jëwriñ ñoom si Ahmadul Muntaxa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te doole ko wér ak njabootu Serigne Touba gépp ak nu taalibe yi di sant Baabul Muridiina Cheikh Ibrahima Fall di ko jaari ci jëwriñam bi Serigne Cheikh Jëmb di ñaan yàlla yàggal ko fi te doole ko wér ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ak nu taalibe yi di sant ba Bachir Fall alxuraan baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu Cheikh Mbacke Fall gépp ak nun talibi yi di la fay nuyoo di la siyaar baax suñu baay baay ra Jóob di suñu jëwriñ ci kër gi di suñu waajur di suñu lépp ñu ngi lay siyaar baax di rafetlu kàddu yi waaye bis bii nag bis la boo xam ni ni nga ko waxee rek benn la ci bis yi muy bis bi nga xamante ni ci la sëñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul gërëme jàmbaaram ja murid bu mag ba di Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina bis boobu nag wax nañ ni ma nga xew woon ca Daaru Salaam doonoon bisub talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu dëppoo wasasin 1306 junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn ci gàddaay gi dëppoo 1890 ci ati tuwaab la ñu wax ne ci la Seex Ibra am ngërëmal Serigne Touba muy ngërëm lu mujj loolu mu ko gërëm te sant ko xamal ko ni ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la ba ni mu ko yebalee mu dem Ndar bis boobu nag la ba Bassirou Fall alxuraan di màggal fii ci Touba Jannatul Mahwa muy fii ci pàkki maam Cheikh Ibrahima Fall di Muridiina pàkk yi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko joxoon njabaru Cheikh Ibrahima Fall gi te bis bi nag ñu ngi ko daa defee ca Tiwaawan waaye yàlla dogal nag ñu soppi ko sëriñ bi am ndigal ci soppar ci bis bi ba indi ko fii nag di ko fi defee defin wi nag mooy ni ñuy màggale màggal yëpp bis bi bisu sant la bisu cant ak ngërëm la ndax bis la bu Sëriñ Tuubaa gërëmee Cheikh Ibra te Cheikh Ibra bu ko Sëriñ Tuubaa gërëmul woon kenn du am ngërëm ndax bañ ko nongulee lañ nongul ñëpp waaye buñ ko nongul woon duñ nongul kenn moo tax sëñ Moussa nee na ko yaa jëkk a sa xol fekkoon nga gaayee xor-xoral ñu lay taxal ñi lay setal yaaxal na ngir mi ñuy doxee kon ku jariñu Cheikh Ibra Fall la tax ku xam sëñ Bamba ba mën a jariñu Cheikh Ibra ki wane yoon yi bis boobu nag moom la ñuy màggal màggal gi itam niñ koy màggale moo di boo xamante ne weer wi teru na sëriñ bi dana yónnee ci mboolem daare alxuraan yi nekk ak Njaaréem ak yu fa sàkk ci ñoom jàng ay limi alxuraan yu baree baree baree bëri ak ay limi xasida te lu ci waay man ba def ko nañ ko def addi maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina te it fii suñu xëyee am na ndékk yoo xamante ni sëñ bi da koy togg moom la ñuy togg ci waañ wee ndékk yooyu sëñ bi da koy togg ba mu mel na mu war a mel defal ko ba mu mucc ayib mu jëbal ko njaboot ko na na ba Bamba ma Rasuul gi ak mag ñi àndoon ak sëñ Touba te day woon ak Cheikh Ibrahima Fall fàttali leen bisub cant goo xamante ne ci la sëñ Touba gërëme woon Cheikh Ibrahima cant googee la sëñ bi delloo si ba bis bu agsee mu defal ay bernde yët ko njabootu Serigne Touba gi ak mag ñi nga xamante ne àndoon na nag Serigne Touba te jamonoonteeg Cheikh Ibra bu loolu jàlleet fii ci kër Serigne bi dañuy xëy yendoo faa jàng alxuraanul karim ak ay xasida ak di fa def baatu laa ilaha illallah njàngu alxuraan mais xasida yi dañ koy yendoo ba jant fi so guddi gi itam dañuy fanaane kalimatullahi muy baatu laa ilaha illallah moom la ñuy fanaane ba bët set wicc ay góor yàlla di ko tudd yàlla di ko si kar bu ñu xëyee sëñ bi sant mbooloo mi gërëm leen ñaane leen boole itam sëriñ bi dana fi dajeel addiye yoo xamante ne ni addiye Cheikh Ibrahima Fall ndax Cheikh Ibrahima moom dafa wax ni bépp jàmb yàlla sàkk sàkkal la bopp sama bopp fare kaw say tànk fare suuf muuta la lamiñ di wax laa ilaha illallah moo tax mu ni ba mu des sama jëmm ji man Ibra Fall ñu ni ko lu tax mu ni man day sëñ Bamba sama liggéey baa ngi nii wala sëñ Bamba fu may liggéey nee na man day laaj ndigal ak joxe addiye rek moo tax yàlla boole ma ak sëñ Bamba moo tax mboolem Cheikh fu ñu dajale dajale fa addiye yët ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi dana dajale ci bis bi addiye joo xamante ne ni murid lañ koy laaj muy seen njotug bopp goo xamante ni mu leen di jural mooy xeetlu ko ak jëriñu addina ak alaxira baay baara mii mooy tax taxawee laajum addi yooyee ñu te dajale sëñ bi da koy yët ki fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall baawul muridina kookee yenn ko yët ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa ndax suñ Tuubaa kat nee na addi boo ko joxee danga yokk ci boo yëgee ak boo yëgut daal ni li gën a néew ci yoolu addiya fukki yoon ak ñaar luñ koy ful sax yi lekk nit ci bàmmeel du lekk borom joxe ko du addiya nit koo xamante ne day joxe addiya nee na suuf du la lekk addiya day bari lu néewoon day barkeel lu bari woon day guddal fan day wéral yaram day yokk wërsëg day far ay bakaar lu bàkkaar rëy rëy boo dee joxe addiye saw ñax suñu borom day dem ba far sa bàkkaar yooyee moo tax ñu am nammeeluk joxe addiye ak liggéey li sëriñ bi loolu daal mooy bis bi ak leeral loo ci bàyyi baara di laaj it ñu indi lañ ci xam rek xanaa doole laa sant bu baax rek te di la xamal ne lii dañuy tàmbali ak yow rek ndax xam na ne wun jëmoon suba it mën ngaa toog lu nu wax te baat boo wax doo ci dellu waaye nag noo ngi lay sant ci loolu xanaa ñu egg ci waañ wi seet waañ wi ni mu mel ak ña fa nekk ba xam sëñ mën Ndiaye ñoom bu ñu fa nekkee ñu war cee jël kàddu ñu jox leen ñu jël kàddu ñu yàgg ci waañ wi. waaw kon Baye Baara kon ginnaaw bu ñu sant yàlla julli yonante bi alayhi salaatu wa salaam kon dañuy dellu di jaajëfal Serigne Touba tey jaroo la kal maam Cheikh Ibrahima kon ñi nga xam dañoo samp lu mel ne ay rajo wala ay télévision te am yit yi fu ñu fekk jëfi ku baax ñu jéem koo tasaare ba jaam yàlla jot ci nañ ci war a jote kon sëñ Baara ñooñu ñëpp war nañ leen a njukkal war leen sant war leen a gërëm mu mel ni bis yi de bari na waaye bis bii de dafa mel ni li ko tax a jóg. borom bis bi da doon liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam am fu mu jaarale ab liggéeyam muy ci jëmmi Sëriñ Tuubaa ji Xaadimu Rasuul bi mu bàyyikee njobe ak wàq ñëw itam daa yëkkati ay kàddu yu leer yoo xamante ne ba ko nit ñi déggee dafa mel ni kàddu yi dafa tayle woon boppam waaye mel nag daa jot boppam ndax ak tayle la ca borom di bëgg mu jot boppam dafa ñëw ne sëriñ bi yàlla mi ma moom moo ma ne bàmba moo la moom raasi ko jox ko si pexe di raas bamba nag ba gis ko nag ñëw ki pexeem dégg naa bi mu ñëwee sëriñ bi def ko ne ndongo li foo bàyyi ko mu ne ko njabeeg wàqi mu ne ko luy sa itte mu ne ko itte ji topp yàlla borom bi tabaaraka wa taala la dégg naa seerafaal ne ko waaw topp yàlla de suñ borom digal na ko mbooleem jaamu yàlla yi donte ñenn ñi dañoo gàntu daal ne man de ci ma fekk seerafaal ne ko damaa topp tànk ba mu sof yi nag gis ma fu génn ndax ci laa am itte kon foofu da ngay dégg ne kon ñu ngi ci cadre waxante ak di seetante foofu nag bi ñu seetantee ba xam ne sëriñ bi moom liggéey bi mu wooteel yàlla te wooteel ko yonante bi ñenn ñi di jàppe ne mu jàddit la ñenn ñi ne moom day kuy liggéeyal yonent bi ndax mu Ka wax na ko nee na mu xaadima rasul fii zudaaniya waaye moo ram xarnu bi àndi niiraani kon mel na ni kooku kon euh, ñu bare bare ñu ngi koy melal ci aw doxinam ak melakaanam waaye foo ko làmbit day mën a nekk dëgg nag ndax foo ko làmb laal na ca loola seer it daf koo wax ne ko yàlla mii nga xamante ne daf maa jox ndigal ci sa jëmm ji ne naa la seet ba gës la jox la saa mbiri bopp sëriñ bi seet nag kii jóge ci yàlla ak waxi yàlla indil ko ko kon kii mooy kan nag ndax Seex Faal li mu indaal dafa rëy xam ngeen ne yegg ci yàlla ak wàqante ci ak yàlla xam ngeen ne yombut ndax mboolem yonent yi faqakadul mi nel uluuf yaaru juul benn yonent lañu dégg ñu naa ci Moussa kàllaamulaahi te keroog muy wàqante yàlla ca wàqante yàllam ca jële borom téere yi xam nañ ko ndax Moussa daa wax ne suñ boroom dama laa bëgg a gis mu ne ko loo ci jublu mu ne ko doom aadama bu ne da ngaa am bëgg-bëggam ndax danga nga noo bind boole noo xel te loolu dafa bokk ci li ma bëgg mu ne ko Moussa mu naa ma ne ko bind gi ma la bind def la doomu ma doyu la ma dellu defal la yonnant dellu boole la ci awlul xës mi nga ne nag maa bëgg a gis kenn mësuma koo wax de mu ne ko waaye loolu saa bëgg la saa borom ne ko kon xoolal ca doj wee fik xool te bañ a xef Moussa di xool doj wa suñ borom tibb ci tuuti ci mbuutum kun fa yàkkoon dikk explosé bos doj wi Moussa xam diiru lu toll 40 jours bi mu ximmi ko mu ne ko naka ma def mu ne ko doy na kon Cheikh Fall bu indeeli ne damaa yegg ci yàlla te waxante ma ak moom lam indi ci yàlla mooy lan mooy dañ koo boole jëmmi sëñ Tubaa ci ak topp mu dikki nag dégg ko ay loxoom nag ne ko jox naa la sa bopp àddina sëriñ mi ne ko waa mu ne ko àllaaxira jën jëm àddina ji buñ ci dawalee sunu xel te waxtaan ci xam nañ ne kàddu googu moom bu doon ak tayle la ñu ne jot na ko ndax dafa saxan di ko liggéeyal ci ay cëram di ko jox alalam ak ak njabootam ba diirum ni fi bàyyi ko ad àllaaxira jëm ci boole itam fii mu tëdd di kërug dëggam dërëm buñ ko fa siyaaree ki fi nekkal Seera Faal bu màggal ak Touba jàllee mu yëkkati ko jox ko ki fi nekkal Sëriñ kon dunduk Seera Faal gi Sëriñ Touba la ñeel waaye faatam gi moom la ñeel kooku nag moo amee jaajëf sangam ba jaajëf ji mat jaajëf te foofu maa ngi wax ne nit ñi nañu def ndànk sëñ Tuubaa daa yëg jëkk a yëkkati jaajëf ji jox ko Cheikh Fall mu ne ko dégg naa ko delluwaat ci liggéeyam mu def ko ñaari yoon Cheikh ne ko dégg naa ko delluwaat ci bu ñetteel nag li ko tax a bëgg a wàcc loolu laa bëgg mu leer àdduna bépp xam nga ñaari lu tax wàcc ko na bi muy jébbal da ko waxal ne ko jënd naa la yàlla jënd naa la yonent ba alay salaatu wasalaam sa jëmm ji ci laa tàmbalee ci laa yem booba nag sëñ bi li tax su mu nangutoon waaj da ko wax ne ko Ibra Faal mu naa ah, mu ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la kon wàcc jot na te ci jëm boppam ji de na ko dégg naa ko bu ñaareel waxaat loolu ñetteel bi li ko tax a wàcc ko ne Ibra mu naa ah, mu ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la Ahmadou Bamba mii nga joxoon sa bopp ngir jëm yàlla yonent bi it gërëm na la mu doog a xam ne kon mbir maa ngi doog a jot nag fii ci Daaru Salaam kon bis boobee moom la jaam yàlla yëpp def yitte tey jii fas yéene koo màggal te jëm yàlla ak bi tax màggal gi nag dañ koo delloo ci cadre sant te sant dañoo wax ne la in sàkkartum la ashidannakum ku sant ku nekk des laa war a dolli mel ni bis bii nag bis bee jàll di bisub sëñ Touba la ko taxoon a jóg moo tax bis bii jóg rek nu bëgg nag kon sëriñ Fallilou Guèye mii nga xamante ne bis bi mu tàmbalee ba léegi dafa am cër bu sëriñ Basiiru Fall alquran yëkkati jox ko daayira sikkurlaahi boobu maam Cheikh Ibrahima Fall mu nekk ci kenn jiite liggéey boobu kon maanaam bis bi fi ko sëñ bi teg ak lim ci doon jëf kon loolu dañoo bëgg sëriñ Fall liggéey leeral na ko wa salaam. Eh, jërëjëf sëriñ Mouhamadou Ndiaye Ngidjane daa mel ne li ñu war a saraa ci bis bi wax nga ko lépp waaye bis bi nag di bis boo xam maam Cheikh Ibrahima Fall. ci la am ngërëm ci sëriñ Touba sunu boroom da koo jël bis bi ñu bari doon seet bis bi ngir bëgg xam lan mooy jëmmi bis bi ñu di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ay mag ñu bari ñoo xam ne buñ ko waxee waxtaan wi bu foofa day gudd waaye li ci gën a gàtt daal mooy mag ñi nga xam ne dañoo toppoon Cheikh Ibra seeni doom ñoom dañoo jël nag bis bi doon ko topp di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba àgg ci sëñ Mor njaay tomb del moom moo xamoon bis bi nga xam ni ci la maam Cheikh Ibrahima Fall am ngërëm bi ko yàlla dogalee mu jël bis boobu ñu seet ko muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm mu mu bis boobu de la Cheikh ma Fall amee ngërëm ci Serigne Touba ci Darou Salaam yàlla dogal bim ko jëlee ñu wax ko Serigne Mouhamadou Serigne Abdou sakoor boobu moo fi nekk. sëñ Abdou Sakor jël bis bi téye ko ba yàlla dogal mu agsi ci sëñ Modou Aminta sëñ Modou jël bis bi jox ko sëñ Bassirou Fall alxuraan sëñ Bassirou Fall alxuraan di jóge nag Touba di dem Tiwaawoon ngir di màggal bis boobu di ko màggal ba yàgg mu taxaw wax ni bis bi de sama boroom defal na ma ci loo xam képp ko xam ni yàlla dogal na taxaw na ci bis bi rek jéggal nañ ko àdduna ak àllaaxira mu di ko woote ñuy ànd moom di dem Tiwaawoon mu di fa dajale murit yëpp di fa dajale taalib yëpp ngir màggal bisub maam Cheikh Ibrahima Fall boobu di bi mu koy def di ko di ko di ko def di ko def ba yàlla dogal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara taxaw ci xilaafa gi mu tàggoo bis bi sëriñ bi wax ko ni ko yeewkat bu màggee day ñibbi géej Cheikh Ibrahima Fall mi ngeen doon màggal di ko màggale ji tiwaawoon Touba gii la ne kon lañu doon woote foofee da ngeen leen doon won waaye fii la dëkk ñëw leen defe ko fii ñu ànd koog yéen ndax murid yëpp mën cee barkeelu sëñ nag li ko ñor ci bis bi mooy liggéey bii mu ciy liggéeyal Cheikh Rafal sëñ bi dafa wax ni su fekkoon ne da nit ñëpp da dañoo toog ma jël lii nga xam ne defar naa ko ci ay nag defar ko ci xéewal yóbbu ko ci bérébu Cheikh Rafal bee na ma bëgg ñu defal ma ko alxuraan ji ma ciy jàngalu ak salaatu ala nabi yi ma ciy deflu ak cant gi ma ciy def lu ñu def ko ba noppi ñu ne tey la màggal gi ma tëju sama néegi du teema am lima am ci Cheikh Rafal nañ xam ni li ma ñor mooy Cheikh Ibra doo ma ñor te moom doo nga tax ma di ko yëkkati moom doo nga tax ma di ko tëral ku ma àndal ku ne it nag bis bii mooy sa bis ci Cheikh ma Fall kon sëñ Basiru dafa yemewul bis bi ak dara ndax bis bi bu dul woon ak bis bi dara du nu jar ndax nanga xam ni bis bi daal daal daal lëm yu bari yonent bi dafa Sëriñ dafa am fukki fan ak juróom di weeru safar yonent bi am fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm Cheikh Bassirou sëñ Cheikh Ibrahima Fall am fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi weer wi weeru gàmm wi ci la daggee buumi njaam yi nag ci la xettilee képp kuy murit ci la defal ci la defal yoonu kër Cheikh Ibrahima Fall wi loo xam ne duutuñu tàggoog moom ba faw ndax dafa waxoon Serigne Touba ni ko fu sa njaam gi fu sama fu sa sang gi yegg rek na fa sama njaam gi yegg kon ku tudd Serigne Touba tudd Cheikh Ibrahima Fall waaye man di la xamal nag ni sëñ Bassirou Fall alxuraan ñu ngi ñaan ci barkeb lislaam barkeb Serigne Touba ak Cheikh Ibra sunu borom yàggal ko loolu te guddalu fanam ndax dimbali na murid yi dalal na seenum xel àggale na leen ci yàlla ndax liggéey bii muy liggéey lu sel gi muy sell da ciy rey fukki nag ak nangam tonub soble tonub pombiteer ci suba ba tey ñu di ko def ak leneen lu ñu mun ta wax ñu di ko jël di ko yóbbu bérébu Seex Rafaal te kenn ku ci sa baaraamu sànq lañ bii di takk ba nga macc ko amut Seex doo nga ko moom te Seex Rafaal doo la koy jox kon nañ xam ne jëf jooju àgg na foo xam ne nun day am na kilifa du ma tudd mu yenu naa bool bi suba teel supp ko fi kanamam fekk muy jàng yor kaamiru alxuraan ñu teg ko ni ko sëñ Basir Fall alxuraan fi moo fi yónnee lii mu lu ko ma wubbi ko mu woo naa mu ñëw mu ne ma soo demee neel sëñ Basir Fall alxuraan màggal yëpp bari na waaye lii mu defal Cheikh Rafal di Cheikh Rafal ko def de moom dong koy def kon nan xam ñi ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak képp ko ànd ak moom ak ku ko yéene màggal gi nag du màggaluk fo du màggaluk tëgg du màggaluk tàccu màggaluk sant yàlla la ak sunu gétt ba ñu sampoon sawara tañ sempi ko maam Cheikh Ibrahima Fall sempi ko ñu jot sunu bopp kon loolu lañ ci war a màggal kon war nañ ko sant bu baax ñu koy ñaanal nag mu yàgg fi lool ta wér te lu mu yéene ren ba def ko bu déwénee yàlla na man lu ko raw fanam wi yàlla nay aw doj ku ko xaar yàlla na nga xaddi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ku fi taxaw rek yàlla na nga am ngërëmal Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall kon Serigne Maam Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax yow mi nga xam ne da ngay kenn ci Cheikh Ibrahima Fall ñëw teew fi fekkee jataay bi waroon nga cee jël kàddu sant waaye nag sëriñ bi daa joxe kàddu rek ni moom lu nu wax rek baax na ndax daal nee na xolam sedd na guy ci maam Cheikh Ibrahima kon nag rajo bii nga xam ne dañ koy wax waar wi te ku bëgg a am tool da ngay nangoo waaru ba dañ ne Baye Demba waar Njaay waar waa ko yóbbu géej kon waar wi bu dikkee ci waaru ci toolu sëñ Basiru Fall alxuraan di toolu Cheikh Fall di ci bay kon waar wi yàlla na amub tool ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall te ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan ngeen yàgg fi te wér ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taxoon ñu jox la kàddu gi sëñ Fallu mat na matale nga ko ah sëñ Man Njaay Géejaani sant nañ ko bu baax ndax li mu la joxe kàddu gi it la ko joxe noonu foofu dong la xéewal yi nga xamante ne moom ngeen ciy doxalit nun ñi ngeen koy wax di xanaa ñi ko gisagut waaye yéen de xam nañ ne seen baaraam sànq leeñ teg ngeen 1000 francs ne baaraam bi képp bu laalee seen seen catu lammiñ 1000 francs dana daanu kon loola moom xam ngeen ne kenn du fab sa baaraam di ko laal fii di ko laal fii di jox 1000 francs te loolu doo ca may dara doo ca safalal dara kon sant nañ leen baax ci sell gi ngeen koy sellal jëf ji ngeen ciy jëf yàlla na suñu borom dolli ay xéewal ak ngëneel dool leen wéral may leen kattan gu ngeen koy jëfe guddeeg bëccëg sant nañ baax suñu xool seen ne ni rajo waar wi nag da daa dikk yorub goppam fas yéene laan la ci waaru kër maam Cheikh Ibrahima Fall moom xam ngeen ne yéen kër maam Cheikh Ibrahima Fall ku sa waaru landangu ci tool bi la fa doon xaaxaama kii bi yëpp nga bu ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall dana fa saajo tey ji ak bëllëgee kon nañ doolee góorgóorlu te xam na ñoom dugg nañ foo xaye fii fu mat a dugg la fu mat a jëfe la li nga wax ne ku dikk xettali ko it moo tax kii ñu ràng ma ko di si laaj loo njotug bakkan gi ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñett yi ne képp koo xaye ki mën nga koo jëf jot sa bopp jotaale say bokk loolu lépp moom ku fi taxaw rek sa aajo faju na tey ji ak ëllëg waaye nag wolof dafa defe ni bu ma la dee ñaanal dara te yëkkatuma dara def la da ngay defe ñaan gi amul bindu ma jox da ngay ñaan ngi amul fekk na moom bu la xuma moom bu la xoolee rek doomam rek na kon jërë ngeen jëf jërëjëf waar wi sëñ Basiru si la ak ñi ngi àndal ñëpp sant nañ leen bu baax xanaa kon bu fekkente ne am na fu ngeen war a jàll ci waañ yi ci des ndax waañu wi képp mooy waañu wu njëkk bi waaye waañ yaa ngi ci biir jërëjëf